jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu topp ci Dakar live maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar muy mbégte jàkkaarloo gi yéen waaye tam muy mbégte eh, ngir eh, dalal eh, Cheikh Tidiane Ahmed ñas noonu laa ko mën a waxee ñu gën koo ràññee ci rek Cheikh Cheikh Niass muy le marabout de Ousmane Sonko moom askan wi ràññee nañ ko bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne rek saa su nekk daf koy dëgmal askanu Sénégal tey ñu fas yéene waxtaan rek li fi jot a romb ci wàllum politique waaye gën a focus ci li nga xam ne moom mooy liggéey muy wàllum faj ak ñaan Cheikh Tidiane Niass maa ngi en tout cas di la xamal ni mbégte la ngir dalalaat la. ñu ngi lay fay soxna si di nuyu téléspectateur yi safoo di seetaan Dakar live ci réew mi bitim réew di am mbégte ak kontante ak sant suñu borom mi nga xam ni ba dara dul dara la ñu wan ñuy gis mu metti mu ñuy wan ñuy xuus muy métti mu ñuy wan bañ egsi si cappaandaw lañ gisoon la waraloon ñuy xeex yëpp sénégalais yi gis nañ ko di dolli di féliciter sénégalais yi du ma ne di féliciter suñu bopp waaye di féliciter sénégalais yi ndax seen i carte ak seeni doole ak seeni i bëgg-bëgg ak aussi tamit jaay seen i nelaw jaay seeni xiif jaay seen mar jëndee ko benn jour boo xam ne day ñëw pour dàq mboolem lu naroon a métti ci réew mi moom lañ def di féliciter aussi tamit suñ mbokk yi nga xam ne ñu ci diaspora bi mention spéciale parce que ñoom tamit gisuñ ndey gisuñ baay gisuñ soxna jaay seen lépp jëndee ko réew mi waaye it am ñoo xam ne dañ leen a defal ay fiscal yoo xam ne dañ ne duñ ci réew mi ñii ñu ne buñ duggee ñu téye leen ñii ñu nar leen indi ay problème ñoom ñëpp ñu boole seen doole dénk ko le président Ousmane Sonko du mën a jomaay li tax du mën a jomaay mooy Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko kon boo waxee kenn ki yóbbaale na keneen ki euh, pour yàqkat yi nga xam ne commencé nañoo jóg ñu ngi leen di félicité di leen gërëm di leen sant di wax ne gouvernement bii ñu gis am nañ ci yaakaar am nañ ci yaqin am nañ ci kóolute te yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaqin tas yàlla bu kóolute tas te am nañ yaakaar ne du tas ndax yàlla mu ñu wanoon ne Sonko mooy jiite bañ cay topp di ngar ngari di wax ñu bëri gëmuñ ñu woon yàlla moom aussi tamit moo ñu wanaat ne Sénégal pour ñu bëgg incha allah faaw ñu boole doole yi teg ko ci loxo gouvernement bi bàyyi leen ñu doxal alors euh, Cheikh Tidiane fi may dooree rek euh, dañuy wax ci actualité politique ak li nga xam ne jot nañ ko nemmeeku euh, muy jamonoy campagne yi da nga wàccoon sur le terrain campagne fi nga xamante ni moom mooy sa base fa nga juddoo ñu xam la ràññee la muy Kaolack nga daal di fay campagne objectif bi nga jël lan moo ko waral. waa booy xool Kaolack mille neuf cent et quelque depuis indépendance ba léegi. suñ maam yi dëkk dëkkoon ci dëkk ba ku ci dekkiwaat sa kër ngay jëm direct lu waral loolu mooy dañoo gis ne Kaolack maanaam développé wut ci dara te ñàkk développement boobu mu def toujours dañ leen di nax ci métatu côté bañ leen di naxee beneen bi ci des aussi tamit président Ousmane Sonko am lu mu wax élection 2019 ah, d'après élection 2019 mu ne yen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biir village yi yéen a ngi ci biir ville yi wàcc leen ci village bi mooy ci àll bi ngeen xamal nitu àll bi projet bi ndax projet bi du projet boo xam ni bu nit di toog ci benn koyam la rek na xam naa ko keneen du ko xam ñu gis élection depuis élection maire yi jàll na fi li ëpp ci maire yuñ perte ci àll bi la élection député yi jaar fi ba ci biir Kaolack mooy Kaolack ville ñoo ko gañe mooy village bi dañu fa gañe ñu def nag suñ taxaw seetlu ne Ousmane li ko waroon def na ko mooy mën na wàcc ci village ci euh, ville yi wax ak waa ville bi mais village bi nag ñun suñ devoir la ñu ne kon ñun tamit lii dafay jor liggéey bu mag liggéey bi nag métti woon na parce que li tax mu métti ko yem ne dem ba bi tey dëkk bu ne mu nax leen naxee leen dugal fa courant di leen politiquer loolu ku mel ne ñeneen ak ñeneen DG yi fa nekk te àll bi benn méthode politique moo fa amoon mooy doomu yaay diw ji ak doomu baay diw ji fa ñuy politique kaa ñu jàppale leen maanaam kóllëre lañ ko defoon ñun gën a leen ci loolu yomb jafe woon na parce que li tax mu jafe woon mooy amuñu woon benn maanaam profil buy tax ñu gëm suñ profil kase lu dul dañu teg seen loxo lu wér mais dañoo àgg tegal leen projet bi wax leen fa mu jëm xamal leen doomu bàyyi jiw jiw jooju fa muy tibbee di leen indil tibb boobu lañ bëgg a bloqué bis mu ñu ko bloqué nag yéen ak ñoom yéen a yem fi ngeen tibbee mooy lan mooy état def leen di gëstu parce que tey li tax dama bàyyi diw jooju di leen ñëw di leen indil ngeen mën koo voteel bi daan jar ñaari junni tax ngeen am seen xorriya ba mën a wateel ku leen neex ceeb ba lañ jël yokk ko def ko 18000 wala ñu def ko 13000 yokku diw yokku ndangam yokku tamit li ngeen daan amee ci ñaari junni ci luuma mën cee dund semaine bu ngeen àggee juróomi junni maytu leen ko loolu nag la ñuy xeex ne yow ak doomi bàyyi diw jiy indi yéen ay yem bu ngeen àggee luuma li ngeen di jëndee ceeb lu ngeen di jëndee diwlin lu ngeen di jëndee courant xamal leen aussi tamit projet bi jëm li wax ci paj mi li mu wax ci mbay mi li wax ci jiwu ji wax ci jàppale baykat yi aussi tamit parce que xamal leen aussi tamit ne leen ki Ousmane Tabbu it seen koo xam ni man Cheikh di ñëw ci yéen sama compte bancaire li ci nekk nekku ci bosam 3 millions ak quelques liquide ak yeneen yeneen yoo xam ne ni ay bien la yoo xam ne boo ko dajalee rek lu mu gàtt gàtt 30 et millions lay doon xaw ma nangam loolu c'est première fois beneen bi il faut ngeen ñam pauvre mooy ku ñàkk parce que jox ngeen réew mi ñu am yërëmuñ kon il faut que ngeen jox réew mi ku ñàkk mu am yërmande ci ñi ci ci ñi ñàkk parce que ki ñàkk rek moo mën a xam lan moo lan la ñàkk di saf mais ki am heure boo ko joxee day xool koto amam nan lay gën a yéegee mais nag ci kaw ki ñàkk ba pare ragal yàlla te kii Ousmane Tabou ñàkk na ragal na yàlla baayam baykat la yaayam baykat la te c'est la première fois sax ngeen war a essayer koo xam ne ndayam ak baayam ñi ngi dund su ngeen gisee lu leen neexul sax ngeen ngeen jël oto wàcc njaga ñaa wax ko wax ko baayam parce que nag wax dëgg neexee la nag nit a tabu ko am kilifa hmm. d'accord alors fi may ñëw rek euh, mooy tey dañu gis maanaam loo xam ne mën naa wax ne c'est la première fois mu am ca diwaanu Kaolack par rapport ak tentative yi ngeen ci daj par rapport ak li ngeen ci yàqule mooy gañe Kaolack loolu mooy question bi Sénégalais yëpp di laaj naka ngeen def euh, ba nangu xolu jaam ya fa waxoon naa ko waxati ko bay xool élection maire yi ba mu jàllee ñu bari di tëb di dal élection député yi jàll ñu bëri di tëb di dal. te booy xawar biir Kaolack sax daawuñ ko ñàkk état pouvoir moo ko daan gagné parce que la fa dajee ci ay këru sëriñ dafa bari te li ci ëpp dañ daan jaare ci kaw kilifa yi kilifa yi ñoom it wax dëgg ne yàlla euh, di xool seen besoin kër ak seen besoin taalibe aussi tamit kilifa mënul ànd ak lu dul état loolu dañ koy comprendre mais nag ci cir circonstance yenn côté yi ñu ne nag ñun nag il faut ñu am maanaam liggéey bu mag mu ñu fiy xaar bu métti boo xam ne dañ ci jëlee ay saaga danañ ci jële ay menaces danañ ci jëlee ay détails mais loolu c'est le moment passé na moment moment biñ toll nii nag moom mooy jiima indi nit ñi xamal leen aussi tamit fan lañ jëm ak fan lan lañ soxla ak fan lañ mën a amee liñ soxla ñu commencé nag dugg par kër étape par étape liggéey ci liggéey bu mucc ay la ca gannaaw de xaw ma ko waaye la ma waxoon laay waxaat rek boo xool élection maire yi bi mu passé député yi ñëw laa ne woon laa ne def benn maanaam vidéo su ma jumul fii laa ko defee woon ma ne leen moment wu tabaski bi la ma ne leen xanaa ba Cheikh Niass duggagut ci politique di la mais actuellement nii ma dugg ci politique ma kuy gagné fii ci Kaolack waaye nekk tut APR loolu nag ba ma koy wax ñu bëri def def nañ ko ree parce que dañoo xam point faible bi ñu daan jaar nit ñi te doomu aadama lum lum ñàkk ñàkk ñàkk xëy ba boo boo ne yow mbaam mala ca luuma bu moo la gën a seer mu xoolaat boppam xam ne li nga ko wax dëgg la mooy lan mooy tey boo yoree boo yoree vingt cinq mille dem di ci jënd ab mbaam mënoo cee mënoo mënoo mënoo cee am ci mbaam te tey boo jëlee cinq mille ñëw jox ko nit ne ko wateel ma mu wat mu ñàkk fayda wateel la misaal moom rek lañ leen daan jox ba pare nag indil leen la fi jëlee Ablaye Wade waa ji li ko fi teg mooy dañ doon xeex indil leen image Youssou Ndour yi nga xam ne daan nañ campagne ñu Macky Sall di leen ko wan di leen ko tegal jënd suñ tabla bu mag kër guñ bu dugg wan la ne leen lii mooñ moom lañ doon xeex te moo fi nekkaat ba tey est-ce que jaaru nañu continuer ko teg beneen bi ci desit mooy ñëpp xam nañ ne Firawna bon na gépp ak bon mais ba muy dem bawu fi kenn mais xaamaan lu mu bon bon bon yaakaar na mooy doon Firawna mais yàlla xam ne bu doon dee Firawna mu tegaat lu raw loola abu xetam yàlla daf ko gaaw alak ko ba gën tëg alal jooja nañ moytu lool dal ñu ci kii nii wax leen fi ñu jaar li ñu wax maanaam niñ déformé suñ kilifa yi ba nga xam ne tey maanaam détail bu bëri jaar na suñ diggante suñ kilifa yi te ci état de Macky Sall la génne parce que ak kilifa yaa ngi dégg a war moom moo leen tere wax parce que moo leen tere wax mooy parce que ki digal naan ko defal bu defut yaa ko tere wax te kilifa yi yàgg nañ ko digal defut xamal leen aussi tamit ne leen jiw bi fi mu tolloon xool nañu ko yokkee taux bi bi xool nañu ko yokkee gerte gi dañ leen koy jaayee kilo exemple 1000 francs su ngeen bayee ba pare ñu ne leen kilo 300 lañ ko mën a jëndee te yéen a ngi jëndee woon ci état bi 1000 francs kilo ñu ne leen 300 mën a jëndee ak yeneen mën a wax ak yu mënta wax autoluñu leen ay dépôt yi ngeen mën a denc seen ngooñ mi pour mën di ci dund parce que bu njëkk da daan ay wurmbal wala da daan ay seko yi ngeen daan dem denc loola état leen lii nag dafa jot sëkk ngeen nag tànn seen mbokkam baykat moo xam ne dana xam lan mooy bay bu mu leen bett sax nawet jot ngeen gis ko njaga ñaaw muy téye machine di te di di di suqi ci ci ci ci ci ët yi yaa ngi dégg ci neefare fas yi di yóbbu ci toolam yaa ngi dégg di tawte ci àll bi di lekk ci ci rek naajo jeeg ci rek yaa ngi dégg di di dugg ci àll bi di tëdd di tëdd ci pajaas yi parce que loolu la xam c'est normal la ngeen fal nit bu fekkee danga nekk ci réew moo xam ne la ci ëpp ay baadolo lañ da ngay tànn koo xam ne mu ngi ci biir baadolo gi xam xam li baadolo di saf def ba mën a yemale maanaam baadalo ak buur parce que nag dafa doy ronqañi baadalo yaa ngi dégg di siim cere yi buur saa si fii lii leen xamal xamal leen fa jëm liñ bëgg ñu ci ëpp adhéré d' accord ñu ci ëpp na d' accord duñ tàyyi di continuer di ñëwaat ci dëkk ba di wax ak ñoom ba la fay élection ñu ci ëpp nag ñii ne ñun amuñ ay car ñii ne ñun tey boo xoolee maanaam comité rural bi boo xoolee benn dëkk la ñuy xool ne fa la ñuy watee exemple rek comme fu mel ni maanaam commune rurale Kër Madiabel nga ne tey dëkk yu ko wër bëri na waaye Kër Manonga mooy mooy base commune rurale bi Taïba moo ëpp moo ëmb Taïba Mbayeen moo ëmb ñunguti buntu ñunguti walla Paymar yaa ngi dégg Njëgaan Julexaar Kooseer googu yëpp nga ne tey exemple rek laay joxe de dëkk fukki dëkk ak nangam yooyu mu ëmbu benn dëkk la ñuy watee si léegi fukki dëkk ak yooyu ñuy yooyu muy ëmb aussi tamit duñ mën a téye duñ mën a jug di dox dëkk par dëkk di wate parce que koor la ñu jël suñu matukaay nag ñun lañ ca man comme suñu charge def ko te yàlla rek tax jël ay kaar recruter ay nit jël ay safoor dëkk bu ci nekk mu jaral ñu ñu xool ñaata ñaata personne ñooy voté ji nangam lañ dëkk nangam la ñuy voté ñu jël leen yeb lañ ci kaar ñu dem voté ji buñ buñ pare lépp suñu moyen bopp parti joxuñu ko kenn joxuñu ko waaye it defuñ ko it ngir xaar ci dara dañ ko def ngir Sénégal changé ba faw dañ ko def ngir jaamu ci yàlla dañ ko def ngir àndoon ak góor goo xam ne teg nañ ko fitna joo xam ne fitna jooju bu ko Sénégal bu ko Sénégal nanguut a tegg ñun ñu jël suñu responsabilité lañ ci man suñ kem kattan teggi ko ba fu ñu ci fu ñu ci yàlla yemale parce que dafa maanaam dafa neex ci xol bu histoire Sénégal di bind bindi ne Ousmane Sonko bañ koy torturer bañ koy nangam maanaam boo ñëwee exemple ba lew nañu seen nga ne ah lew nañu seen de ñoo ngi ko doon défendre waaye au cause Cheikh Tidiane lii ak lii la ci waxoon lii ak lii lii ak lii la ci lii ak lii la ci ñàkkoon léegi loolu dooy na sant yàlla ci samay sët ak samay doom Sénégal aussi tamit defaru dafa ma ëppal lu nekk parce que ñun ku ciy dee sa taxement da nga def nañ ñu suul Sénégal kon amul lu dul Sénégal bu ñu gisee ku ko nar a defar ñu jànkuwaat teg lu ne ñu tëj ko ci gaze ko ci jiñ ko viol tooñ ko yaa ngi dégg teg ko bépp métit mu nangu ko muñ di puus bu agsi wutoon fii rek ma xam ne la ma yàlla wanoon amut ngeen def loolu yëpp def seen campagne daal di nag euh, fexe ba nit ña wóolu leen daal di leen di voté la ci ëpp waaye euh, gis nañu li ngeen jot a def ba tey falu ngeen euh, Diomaye fay nekk président bu Sénégal Ousmane Sonko doon première ministre gis nga li nga xamante ni jot nañ koo teg ngir ña nga xam ne ñoo nar a jàppale Ousmane Sonko ci liggéey bi naka gisee classement bi nga xamante ni def na ko ak ministre yi nga xam ne jot na leen a tànn. waa tiit lool parce Sénégal. dañuy souvent dañuy def buñ falee nit dara wala ñu tabb ko rumbaay yi xumbaay yi fay jiitu ñu koy tëggal naan ko sa liggéeyu nday la te fekk loolu musiba gu rëy la parce que njiit dafa foor bala nga koo xam fi nga nekkewul responsabilité ak fi nga nekkee responsabilité du benn parce que bi nga nekk gu responsabilité amoo jabar amoo doom lu waaye wax nga dugg ci lu waaye wax nga xeex mais boo demee ba commencé am responsabilité am jabar am doom dangay fekk ñaar ñuy xeex ngay moytu looy moytu mooy dépasse suba bi nga war a def ci kër ga ku la koy jox yaa koy jox sa bopp kon taloo atte ñaar ñi bañ lay xaañ ba suba doo am foo wute ci dépasse kon sa njaboot gi fu ñuy dundee boo ko nattee foofu rek xam ne responsabilité lu métti la mais nag boo ko nattee ci koo xam ni ak jubati la ci bëgg a dëngal buñ ko falee dangay gis ñu lay wax félicité boo xoolee sama tey sama téléphone ñi ñi nga xam ni fal nañ leen ñu nekkoon samay samay samay xameel ku mel ni Balla Moussa Fofana nga xam ne ñëw na ziaralew nañu seen yaa ngi dégg ànd ak euh, délégation am ci tànk Ousmane Sonko ñëw fa bi may bi may bi ma koy bind ci estati dama ne ko monsieur le ministre ñu ngi lay ndokkeel ci lu métti lu diis li dal ci yow waaye nag yàlla na ko yàlla oyofal ba nga réussir ko ba liggéeyal Sénégal lu raw li doon sént ci yow ba yeneen nomination dal sa kaw mooy lan mooy maanaam jërëjëf suñu borom jeex na parce que doomu aadama boo jiitee fukki nit dafa am responsabilité bu mag bu daanu sa kaw responsabilité boobu du noos moo koy mottali responsabilité boobu du yaafuus moo koy mottali responsabilité boobu du maanaam gis nit ki jéppi ko rek jàpp ko tëjlu ko moo koy mottali responsabilité boobu du tooñ moo koy mottali mais liy mottali responsabilité boob mooy si premier objectif mooy nga jël musuwaar bu weex tàll boo xam ne bépp Sénégal boo xam ne aajowoo na ci poste bi ñu la fal ronkañam buy tuuru nga xool noo mën def ba fompal ko ko soo sa loxo jotiwut ci foo koy fompale it nga fexe ba xool ko loxoom jot fañ koy fompale nga fompal ko ko parce que loolu mooy premier objectif deuxième objectif di féliciter président Bassirou jomaay fay dañ koy féliciter mooy gis nañ ne tànk yem awoon di ko campagner ñun ñu awoon te di nit ñi tànk yi wàcce ko parce que bu ko wàccoon ñu rus parce que dañ doon gëmloo nit ñi naan leen maanaam li ñuy xeex du poste buñ ci yaakaar li ñuy xeex du profil ñu ciy xaar parce que am nañ profil ba pare kuy sa maam Khalifa Niass na profil mais li ñuy xeex mooy lan mooy ki nga xam ne bët bu sat muy jooytu fi muy jooytoo te li muy jooytu mënta sotti te benn nit bu buñ ko jëloon tabb ko loolu yëpp saafaraw kon ñun suñ xeex dafa war a nekk jii ma tabb benn nit boobu te fexe bàyyi ki ñuy nax chaque jour naa ko noppil ñu gis ni bi mu jëlee réew mi premier objectif bi mu njëkk def mooy boo xoolaan maam boo jëlee réew mi dañ naan sa ndayee ko liggéey sa bàyyee ko liggéey wax naa ko sànq rumbaay ak mbumbaay yëpp da koo teel a dégagé indi li nga xam ne mooy état de droit maam wane ne temps bi xat na xumbaay ak mbumbaay xaju fi 4 maanaam la 4 avril mooy suñ perte fête indépendance ñeneen ñu ko waxee mu ñëw oyofal ko ba mu oyof yemale ko biir palais ñu gis bu jotaan da ngay gis maanaam suñ président yi dañ daan am complexe wu wane seen culture yaa ngi dégg mu ñëw sol xaftaan maanaam dindi comp dégager maanaam tout tranquillement complexe bi nga xam ne ni international bi ñu koy seetaan naan nangam ak nangam ak nangam foofu it maanaam ku dul xalaat yàlla loola neex defal imagine toi tey ku mel ni Euh, général Moussa Fall ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi woon ci biir ci ci ci biir armée bi tey koo xam ne ni Macky Sall mi la doon def looloo xam ne ni maanaam du njëriñu askan bi tey yàlla indil na la xale boo xam ne maanaam ba nga koy jàpp biir liggéeyu kaayam nga ko fekk jàpp ko ñu jàpp ko tamit yaakaar naa su ma jumul ci weeru koor yaa ngi dégg tooñ ko jël ko yóbbu ko jàpp ko tooñ ko jël ko yóbbu ko yàlla di ko muñal di ko muñal ba moment bañ ko jàppoon mu weeru koor dikkaat mu umee ci biir koor ga incha allah yàlla na ko fan fekkee kàttan nag wér ak wér la fekkee ko mu nar a korte biir pale kon loolu ku ci dul xool yàlla yow xamoo yàlla moo tax toujours may wax ni ministre yiñ ñu nañ dimbale jëwriñ ji leen tabbu dimbale mooy ni sénégalais yi toll ñu seppi la ci ni sa famille toll ni sa askan toll yow gënoo ci kenn jullu ci saw askan am na ñoo xam ne gënoo leen a jàng am na ñoo xam ne gënoo leen gën laa jub lañ yaakaar ñoom ba jël ñu tabbu la gën a jub googu bul rusloo ki la tabbu bul rusloo sénégalais yi pourquoi parce que tollu tuñ ci moment wu yàq moment bi ñu toll mooy lan mooy jéem a régler suñ suñ suñ doom yi ñëw fii ak fii ak 30 ans nangam bu ñu ñëwee fekk fi lu fekk fi lu lu sérieux fekk fi lu ñu mën a dundee fekk fi lu ñuy xeebee sax ñu duggoon ci gaal yi dem fekk fi état bi jiite woon ñu duggoon ci gaal yi dem parce que ñu duggoon ci gaal yi dem loo leen xeeb xeeb xeeb tey ñooñu ñoo régler situation réew mi parce que ñooñu ñoo doon jël seen dërëm ak seen ñaar dërëm di yónnee ci réew mi di wax seeni i naqar yaa ngi dégg lu fi baax ñoo ko tabax ci réew mi impôt bu ñu fi fay ñoo ko fay ci ci réew mi beneen bi kumba am ndey kumba amul ndey jeex ci justice taxaw pays droit taxaw Cheikh Niass ak ku dul Cheikh Niass yem yem yem képp ci droit ku tooñ état gën ci loxoom ba mu set wecci yoon def liggéey am lii lañ ci la ñuy ñaax ci loolu so soxna si man yàlla dafa maa dimbale waxoon naa ko dama koy waxaat nee naa man ci Ousmane laa commencé ci laa yem lu mu baax na lu mu dogal gun moom moo ma jaaxal mais lu mu dogal bi ko ci làmmiñam ànd naa voilà. alors am na solo euh, comme ni ñu ko waxee rek dañuy avancer nag ci li nga xamante ni moom mooy sa liggéey ndax bu ñu xoolee 2021 euh, ak léegi li nga focus ci sa liggéey bariwul trop yaa ngi gënoon focus ci Ousmane Sonko ak ay kàddoom ba tey jilee mu dugal euh, Bassirou jomaay ci biir rek président ci biir pale bi. alors ñu ñëw nag ci wàllu xam-xam Cheikh ku ne xam la wax dëgg yàlla ci wàllum ceet yàlla suñu borom am lum la ci may ba loo ci wax kenn du ko weddi boo ma doon wax tey lan mooy njëriñub seet ak ban kàttan lay def ci doomu soxna si alaaji Fàllu Mbàkke radiyallaahu daan na wax ne lu nit tëb dugg ci dana tëbaat génn ci ñu ne ko lu tax mu ne tëb dugg ci moom xal wu tàng la rek dangay bàyyi tëbaat génn ci rek mooy ñun dañoo sant yàlla parce que suñu wayjur juru góor moo ñu jàngal xam-xam bi ñu jàngale boole ñoo ay ay nitam ñu génn ci réew mi dem fa nga xam ne moom mooy Gàmbi jàngee fa xam-xam jugee fa dem ci yeneen dëkk yu fasantikoo jàngee fa xam-xam biñ ñib see nag yàlla dimbale ñu ñu tarbi suñu mag suñu taaw papa mu jàngal ñu yu bari seet maanaam dañ koo maîtriser ay yooni yooni yoon nee na maanaam seet moo ñu njëkk a wan maanaam ki gën ci Sénégal waaye nag wan ñu jafe-jafe yi mu nar a jànkuwanteeg waaye li ci ëpp importance ci seet du jafe-jafe ya du nangam nga mais terminé ba am na ñoo xam ne bu ñu xamul terminé ba mooy waral su ñu toog ci télé tey ne suba Ousmane Sonko du nekk candidat diw du nekk candidat diw du nekk candidat mais boo ngeen xool sama waxu démb ak sama waxu tey amul lu ci mës a wutee ba ba mu nekkee ci moment yu gën a critique mooy problème mu moom ak Mame Mbaye Niang ñuy lakk ñuy dóor ay nangam ak lu ne ñu koy def heure bu mu micro yi tàllalee dama naan Ousmane Sonko kenn mënu koo tere nekk candidat wa illaa kenn mënta tere ku bokk Pastef jël réew mi. loolu moom maanaam seet moo ñu ko wan ak aussi tamit ñemee wetal suñu borom parce que boo ragalee yàlla yàlla xamal la lépp lu raglu. waaye boo ñemee yàlla aussi tamit yàlla bàyyi la ak seytaane seytaane di la orienté ci ay naxe nga yaakaar ne loolu mooy dëgg ba ba ñu xëy di la vaar di la indil ay jafe-jafe kon seet dafa am solo ci doomu aadama seet ñett kese moo koy waral nag mooy fa nga passé ak fi nga toll ak fa jëm ñett yi mooy seet mooy lan mooy li ñuy wax àdduna ñett kër la mooy ñetti yi fa nga passé fa nga toll fa nga jëm benn bi moo la ciy ump fa nga passé ump la parce que xam la fa nekk ci naqar fi nga toll ump la yaa ci xam nga li ngay jànkuwante fa nga jëm nag moo la ump parce que xamagoo fa loolu mooy lan mooy àllaaxira ci misaal yaa ngi fay dem mais xamagoo loo fay yóbbu xamagoo loo fay fekk parce que mën nga faa yóbbu saagu bàkkaar yàlla dëggu ci xafuru rahim la kon loolu mooy seet moo tax ñun seet képp kuñ ko defal lépp luñ la ci wax lu toll ni tarfatal ani du ci dañ billaahi la si seet gi ñu seetee nag lu wér ci lislaam duñ def lu dëppawut ak lislaam seet gi yontu yàlla idris alayhi salaam la ko jibril jàngaloon parce que idris mamaam dafa bëri woon ay jinne yoo xam ne jinne shayatin lañ jinne yi dañ daan ñëw di wax lu xew lu ñëwagut bu ñu waxee lu ñëwagut ñu ne Idrissa taalibe mi wala ni tamit ne Idrissa ñun tamit wax ñu lu ñëwagut Idrissa nee na xaw ma lu ñëwagut inna allah yaxlamu xayba samawati wal ard ñu ne déedéet parce que jinne yi jinne yi ni dañu wax ne ma suba suba asamaan si day mbooyee nangam nangam nangam te la météo juddoo extra extra léegi nag Idrissa bi ñu ba nga ñu bëri di ko commencé weddi parce que doomu aadama dafa bëgg yàgg a gëm nécessité ak wax lu ñëwagul ak détails yooyu noonu yàlla nag wax jël jël fàtte gis nga yalla nu mu tolérance jël fàtte sànni ko jinne jël ñàkk xam ne ci kanam sànni ko sànni ko sànni ko nit nit du xam lu ñëwagum fii ak suba waaye jinne bu añee li mu añee suba boo ko laajee fàtte na ko léegi nag bi loolu amee yàlla jàngal jibril jibril jàngal idris seet googu noonu idrisa bu tombaan ba pare jibril bi ko jàngale mu tomb ba pare jibril dana ko ana jibril sori na la ba mu tombee xool buntu jël bunt buntu boole leen dagg 3 par 3 wàcce ci tomb ñi dañ ko defee ci suuf ñi dañ ko defee ci tomb nangam ñi dañ ko defee ci yeneen yu uutee bi mu xoolee na ko jibril li gi génne mooy soriwuma lu mel ni 1 mètre jibril na ko akasa mat na man maay jibril sa borom moo ne naa ko naa la xamal seet gii nii pour ñi nga xam ne dañuy ñëw pour bëgg xam lii xew suba ram li daf koy génne loolu la ko yàlla indi rek tolérance pour nga xam ne dana mën a ni niyam mooy seen tëtëg yi nga xam ne sëriñ maam dañ koy téye seen taalibe ñii dañuy joxe tarbiyu ñii dañuy joxe nangam ñii dañ lay yóbbu ci yàlla maanaam te duñ la jox duñ la jox dara ñii nangam comme si que ni mbunaat di xoolee doomam rek maanaam mu suur te du ko nàmpal du ko jox dara mu lekk kon yàlla am na am na lépp waaye nag lépp lu am da koy awee ci buntu ragal yàlla da nga koy awee ci buntu set ak sell ak alxal bu sali mooy xol bu sell sëriñ wax naa ko toujours na ngay naaw na ngay def yi karaama nanga ñëw léegi fekk ko mu xees suba nga ñëw fekk ko mu ñuul na nga ko fekk léegi fi nga taxaw xool ko mu sol yére bu weex mu ne la gëmal xol nga gëmaar xole mu sol yére bu ñuul yëpp di soppeeku su mënta faj soxla du sëriñ sëriñ doyewuñ ko loole résultat kese la ñu doy sëriñ résultat nag ki koy joxe man ngaa naxe mën nga def ci karaamatul ayni mën nga def lu nekk mais fekk maanaam bu guddi jotee ñëpp tëdd nga wéetal sa borom laaj sa sijaara di astaghfirullah di tuubal sa borom ndax istaghfir rabbakum innahu kaana xafaaran yàlla ma ne ba ngeen ma tooñee da leen ma jéggalu ma leen jegal jéggal kon ñu mën cee déggee ne ñaan yàlla li ko ëmb laytaay bi mooy seet parce que nit lu mu dugg te seetu ko rek mu musiba am bu dee jabar la boo duggee te seetu ko musiba am bu dee jëkkër la boo duggee te seetoo ko musiba am bu dee ay kayit yooyu lijjanti la boo duggee te seetoo ko musiba am bu fekkee mission bu ñu lay maanaam jox la sax te seetoo ko musiba am man ngaa dem ba ca biir nag mission ba bett la bu la mission boobu ñu lay jox bette nga ba koo réussir nag il faut nga seetlu boo ko seetloo donte mission ba ñu lay jox naroon naa diis ay sarax dana tax mission bi oyof ba yàlla teg ci loxoom parce que sarax moo tax maa maanaam euh, rayuñ nit ngir ñu tabaskee ñu parce que bu xar ñëw bu xar ma ñëwutoon rek ku ci nekk tabaskee sa taawal la ca topp kon loolu lu mat a bàyyi xel la mooy lan mooy sëriñ bu mënul seet na dem jàngi ko parce que seet mooy base euh, mooy base ñaan yàlla ni nga xam ne analyse noonu lay dimbalee docteur ba mu xam feebar bi la dal pour man la bindal ay ordonnance nga dem faju ci. d'accord alors ginnaaw seet bi ñu ñëw ci wàllum wërsëg ak li nga xam ne moom mooy bayre ak kaaraange ñett yooyu nga tënkal ma ko parce que itam gannaaw seet buñ la waxee fa nga jëm ak fa nga jóge ba noppi itam faw nga am ci lu jëm ci wàllub kaaraange rawatina bayre bi nga xamante ni vraiment ñu baree bari soxla nañ ko ak itam koo xam ne dafa tëju maanaam ko kaaraange laay suma benn paw soose moo ma ko joxoon ci moment wu problème mu Ousmane Sonko Adji Sarr ndeysaan euh, maa ngi koy nuyu bu baax au passage mi ngi fële ci dëkk bu ñuy wax Fuludu ca biir Casamance euh, mu jox ma kaaraange gi ndomba lay doon ndomba juróom-ñaari gaw bi ma koy jox sax moment boobu daanaka réew mi métti woon na mu woo ma téléphone comme man du may gaaw a jël numéro bu ma xamul mag jël ko ñu waxtaan mu ne ma sa benn maam laa boo xam ne dama lay seetaan ci sama fon yi ma ne ko luy fon mu ne ma loolu xale yi kii rek téléphone yi ma ko waaw mu ne ma gis nga bëgg Ousmane Sonko te yàlla rek tax te mënumaa jote ci moom ma nit ma am lu ma la bëgg a dimbalee baaxee la ko te yàlla rek tax ma ne ko waaw mu ne ma boo bindee nangam lim ci kursi yu ma ne ko waaw mu ne ma nga boole koog nangam ci aaya nangam boole koog alam tara kayfa yaatal miim ya dugal ci turu buur ba mooy turu président ba ca biir miim ya ma ne ko waaw mu ne ma nga boole koog nangam def ko juróom-ñaari gaw takk ko loola neex waxal kenn du la jàpp waaw fu la neex duggal da fa génn billahi la si laa ilaha illa wa xayruhu maa ngi ko soog di wax lu la neex defal lu la neex duggal ma ne ko ah, ba mu des tooñ mu ne ma ko ànd ak Ousmane Sonko du tooñ mu na ma gis nga secret bi ma lay jox ma ne ko waaw mu ne ma sama baay nag wu góor gu wu jigéen laa ko jox moment a ma koy jox te ci jamono bii boobaak léegi def na juróom-ñett fukki at ma ah, loolu yàgg na mu ne ma du léegi mag laa du ma du ma gone waaw mu ne ma waaye bii kii def ko ma ne ko waaw mu ne ma attaa nit ñekk bitim réew xam nañ lii may wax parce que dañ dama leen koy defal ñu jaay lu ñu tere waaye ba ma demee xam ne dañuy jaay lu moo tax ma leen koy defal dama koo baax mu ne waaye képp ku ko takk ma ne ko waaw mu ne ma mindeef muy dox ci kaw suuf mënu ci yow dara euh, ba ba problème bi jeexee ni ki kañ bërki démb ci la ma sama benn soxna ne ma waaye sa ndomba gi gën nga koo takk de ma ne ko ay coow li jeex na ndomba bi <laughs> ndomba gi ak coow taxoon ñu jox ma ko rek comme jël nañu réew mi jàpp naa ne dëgg na yàlla wax dëgg yàlla fi mu toll nii moom xanaa dinañu bàyyi wax ay terroriste ak force occulte ak commandant xawma la nag lu ne teg nañ ñu ko rek waaye sant yàlla la. kaaraange soxna si nit ku ne da nga war a wut ndax dañ koo foyee boo tabaxee kër ba mu jekk la maam la gën a ñàkk xayma ca kër ga mooy tey kër ga yëpp mooy buntu kër gi buntu kër booy xool boo tabaxee kër ba mu pare moo ciy gën a moyen seer waaye heure bu amul sécurité li na ci kër gi yëpp ñu sàcc yi bub ko yóbbu sécurité mooy buntu kër gi kër bala nga faa dugg faa nga wut ci buntu bi doomu aadama bala ngaa uti wërsëg faa nga ut sécurité sécurité bi mooy maam ndomba gii ñu wax la man biir na ma ne képp ku ko takk maanaam rab <coughs> ngelaw seytaane noon bu bon noon bu yor làmmiñ bu bon parce que noon dana nekk noonu privé ngay añandoor ak moom di reer ak moom fekk li ne ci xol ba bu ñu ko ubbi woon àdduna tukki sañut nga am li nga am wala li nga bëgg da nga bëgg a xalaat xalaat bu rafet sax mu xalaatee la xalaat bu ñaaw ngeen nga échec kon loolu it lu jar ba la am na ci ñooy du ñuy takk mais lii lim bi dañ koy bind bu la neexee def ko ci soo bu bees wax la lañ koy defee nga suul ko ci sën ci mbalit ba ma ñett fan nga génne ko sangoo ko képp ku la laal wala mu nara def ci yow bon wala mu yéene la ko dana rajo wax dellu ci kawam wa ilaa moom maanaam moom ab mbalit koy tane maanaam du tekkee dara yow da ngay avancé ko fa bu fekkee lu yëm ci wàllu bayre la xool ko ci man ak ñi ma rek ñi ma ànd ak kay ki ma ànd ak yow dañu la ah waaw gone la boo na jantal na teew tamit ah, wax dañu la njaabu xale la yor te aussi tamit macha allah waaw. macha allah moom kay dafa jantal. ah waaw moom kay weesu na foofu ne ko ci moom kay weesu na foofu voilà moom moom moom léppam léppam bien wala nga xool ko ci ñun parce que it nuñ sant ñes dëkk Léona Niassène bokk ci ñu gën a nekk xale bokk ci ñu tudd Cheikh gën a nekk xale mais tey. doo tàpp internet Cheikh Tidiane Niass te génnuñ benn ñaareel ba aussi tamit maanaam doo taxaw lew nañ seen ne Cheikh Tidiane Niass laa laajte nga ne dofu maam xalifa wala maaradu sonko duñ la amalu la njëriñ parce que da ngay génn nit ñi di la wóoti ay diwa nga ne mujjee ci kon loolu yëpp dañ koy sóoraale mais ñun bayra bu ñuy defar bayra bu njëriñ la boo xam ne nit ñi dañ lay bëgg di la jox seen alal tawan aw karaan te duñ ko nangam bi ci it nga wax ma ko muy wàllu am am am am am na jaaro bu ñu ciy defar jaaro bi nag actuellement dafa jeex mais ñu ngi koy ñu ngi koy tëggaluwaat jaaro bi moom la wax jaaro secret lew nañu seen yu ci bëri duñ ko nangoo sulli uñul uññi ko ci biir parce que képp kuñ ciy jëflanteek dafa am cuuraay yu ñu ciy soxla am xaloo soxla ak ay mbir mais kooku da ngay dem ba da nga naan lan moo may indil parce que nag alhamdulilah ñi ngi sante yàlla am nañ tuuti cofeel ci xalifa Niass am na tuuti cër yu ñu jox am na tuuti bachir yu ñu jox te li ma koy waxee toujours képp ku aajoom nar a faju boo yoroon ay milliards di waaxu di ci man doo yegsi parce que dama koy ñaan sama borom képp ku sa aajo nar a faju boo yoroon dërëm yàlla na ma yàlla boole parce que sama mbégte mooy faj naa benn jaamam benn jaamam soxlaam jaare ko ci sa buntu yow nga may ma ko parce que loolu daf may daf may firndeel ne ma xam ne kon yàlla mi maanaam mi ngi nangoo xaritoog man ba tey parce que bu ma ne allahumma ñaari fan ñetti fan kooku ne ma ah doom laa soxna si jël na ëmb allahumma ah dañoo tëjoon sama doom de waaye mujj nañ ko ba yaa ma ko ñaanal allahumma am naa ay kayit allahumma am naa soxna allahumma am naa xaalis loolu daf may gën a yokk motif bu jotee may jaamu yàlla te xam ne sama borom li ma nekk nii neex na ko parce que bu ko neexoon heure bu ne allahumma mu dummooyu benn baat ñaari baat client boobu oma ma li nga ma waxoon aw gisuma ko gàcce gënu koo rëy yàlla na ma ci musal bi alors dañuy dem nag euh, ginnaaw bi nga ñëwee ci wàllum kaaraange waaye tamit bayre gi ni mel ñu ñëw directement nag euh, ci li nga xamante ni soxal na ñu baree bari te askan wi ràññee la ci muy wàllum faj Cheikh Tidiane euh, boo ma doon wax tey lan ngay faj hémorroïde ngay faj bopp bi métti ngay faj jabet ngay faj lan ngay faj dama koy tëj lool ñu tënk ndax temps gudd na ñi ñuy xaar bari ci gàttal rek mooy ñun sëriñ lañ sàkkuwuñ ngir doon sëriñ yàlla moo bëgg ñu doon sëriñ ngir faj soxlaay jaam yi ni mu ko bëggee mooy wax naa ko waxati ko waxati ko ndamuwuñ waaye wa maa bi ndax ma tera bi ko fa hadis ñun suñu wayjur dafa dugg xalwa Kaffrine kër gu ñuy wax kër El Hadj Omar Thiam bi mu duggee xalwa gis Cheikh Naama Tidiane Serifil Fatimi mu ne ko da nga am doom ju góor tuddee ma ko ma garante ko ma lu lu yéeme am foofa parce que moment boobu sama jur wu jigéen heure bu demee def écho écho yi jigéen lay génne man jour bi ma juddu sama papa bi mu jotee booba jamonoy leetar moo am jot leetar na sa soxna am na doom yaa ngi dégg te defuñ ci doom bu lan sama papa ne alhamdulilah rabbi alamin sa suba ga mu bind leetar sama maam bi ma jur bi ko jur moom muy El Hadj Babacar deuxième xalifa général bu maam xalifa ne ko tuddee naa ko Cheikhu Tidiane laaj sama papa ba tey laajte wut nangam lu xew bu ma ñëwut sa ngénte la. ci diggante bi nag ci la ñibbi sama maam ne ko noo def ba xam ne nangam la mu ko damaa gis ci xalwa Cheikhu Tidiane mu ne am ndànk mu ko sa de écho indi jigéen la. mu ne ko Cheikh Tidiane moom wax nangam ak nangam nangam kon ñun mënuñoo def lu dul di ànd dëgg waaye mënuñoo def lu dul topp maanaam njëriñu askan bi ba tax na maanaam wàllum faj sëriñ bu demee ba naan mën naa lii ak mënuma lii rek wala lii laay faj ak lay laay faj rek nekkatul sëriñ parce que feebar yëpp lañ dul faj bu dul feebaru deyaale émorite dañ koy saafara ci benn fan bu dee bu génn la dañ lay jox léegi sunguf nga toj nga def ko ci booy tëddee boo yeewu toj ko amul xaraba suba defal opération bi fu la neex am na ay nit nit ñu def opération Chine bitim réew fu nekk bu ñib see ñu boole ñun ak moom ñu ne ko toogal une semaine nga traité ko nga dem ñibbi billaahi wal kitaab bi interne ak externe bi mooy bi nëbb ak <coughs> bi génn impuissance sexuelle tubaab li muy aay aay mënu koo faj muy muy muy maam euh, ñàkk kartan ngóor kooku dañ la koy fajal définitivement <coughs> am na koo xam ne rab da koy def am na koo xam ne liggéey daf koy def mooy la ñuy wax takk xala am na koo xam ne feebar daf koy def wala jëfandikoo yenn bion yoo xam ne dafay dem ba dafay maam dafay feebalal sa sidit bi parce que awra sidit la du yàq sidit boobu bu feebalee mooy dem boo demee ba gis loo war a réagir pour yëg sa bopp dootoo réagir il faut nga seetaan yenn film yi wala nga xalaat yenn yi wala nangam wala nga xalaat koo xam ne sax mooy tax yow nga mën a ñëw loolu tamit feebar daf koy def ak yenn bion yi ak aussi tamit ne tubaab bi dañ koy jaay parce que comprimé yooyu dosage bi ñu ciy def bu boo nelawee boo boo boo bopp ñun nag li ñuy def aajowut loolu parce que maa farat naa fii kitaabin min shay'in lépp mi ngi ci alxuraan boo demee Saalum mag ñi am 95 ans 80 ans 70 ans dañuy ngénte dàq ngénte xale yu ndaw yi lu koy waral mooy secret yi fi maam yi bàyyoon moo fi nekk maam yi dañ daan am ñaari jabar ñetti jabar ñeenti jabar teg ci ay taaral te duñ mës a tële duñ mës a am impuissance sexuelle ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom ak kër nag buñ ko ubbee ngir faj ñëpp ay tubaab dafa ñëw di faju si ay olof or buñ buñ xëyee di la romb naan ah pourtant moom ñun dañoo fi doon taxawal taxawalaan ñoo doon dox la ñoo doon dox nangam xëy gis la yow ngay faj soxlay ñëpp duñ mën a ñëw parce que seen ak rëy duñ mën a ñëw parce que nangam waaye ñun suñ porte ubbi luñ ko kenn ubbil nañ ko ñëpp képp ku sa aaju natt faj yàlla bu sa soxla yàlla yàlla bu sa soxla faju clinique bi indi na saabu boo xam ne pour kaaraange la ku ñu si contacter boo ko soxlaa day din day raxas yaram complètement clinique bi indi na koo góor goo xam ne awraam dafa dafa gàtt wala mu tuuti daf koy daf koy réyal clinique bi indi na parfum boo xam ne pour bayre la dafay dafay jal bu xalaayiqi xulu maam xolu doomu aadama yi ñu bëgg la dafay faj impuissance sexuelle dafay faj jabet dafay faj asthme dafay faj hémorroïde dafay faj ballonnement dafay faj ndoxu siti dafay faj aussi tamit li ñuy wax sinusite mooy koo xam ne bakkan yi pour mu nokki parfois day xaw a jafe ba nga yaakaar ne soj la fekk loolu du soj parce que du wér indi nañ produit bi koo xam ne yaramam dafa am ay taas taas wala yu mel noonu clinique bi daf koy daf koy saafarawaale mboolem feebar bu la jaaxal boo contacté ci numéro yi incha allah bu neexee yàlla ou whatsapp ou appel normal peut-être nga jot peut-être nga bañ a jot boo jotut bàyyil ma vocal parce que nekkul tout le temps laay am que man ñaan yàlla xaaruma ci ay pilivres nattu bu ma yàlla teg la nattu boobu dama koy dama koy maanaam nangu parce que nag dama judd ci këru sëriñ jàngi lasraar fas alu ahla zikr la yàlla wax ñi xam nañ dimbale ñi xamut kon war nañu mën a dimbale ñu xamut ñu ngi sant di gërëm. jërëjëf Cheikh Ahmed maa ngi lay sant bu baax di la jaajëfal tey nag ñu dalaloon euh, Cheikh Tidiane ñas euh, comme ni ñu koy waxee euh, dafu Baye ñas waaye tamit daal di nekk marabu bu Ousmane Sonko ngeen ràññee ko bu baax kon. dafa